joomaay état bee ko tey boole joomaay ci dossier bi xam nga joomaay soo seetloo soo seetloo joomaay fay yàgg bi mu yàgg ci kaso bi jaaxaloon na ma parce que effectivement boo tooñee président dañ lay téye kaso mais je pense que bu ci laalu woon kenn du ko ci boole ci affaire terrorisme bi bu ci laalu woon kenn du ko ci boole parce que amul sens laa mi du lekk moromam dañoo rut ba pare seen benn naataango journaliste mu dañ ko def parce que mom la fi mom modon modon deuxième plan xaw ma second plan xaw plan A xaw plan B. Mhm. mais biram Souleye c'est le second. mais bir Pastef ci boppam dafa am ay xëccoo parce que ñom nee amuñu plan A ni plan B Ousmane Sonko moy sen seul candidat wa ex. loolu la ñu wax dama ne la xëccoo bi du tay xamoon nit ñi dañ do tay di déglu di dal li Ousmane Sonko di rayanteeg ak sénégalais yëpp di len teg nakar bir parti ma nga na mel ne ñamaanu Dakar ak da Toll. déggoo ma de. laa ilaha illallah ci àdduna ñoom waru ñoo xalaat sax joomaay te biram su nekk fi nekk second bi sonn ci lool nag. dugg ci kaso def ci lu ne lu ne dal ko nekkoon naa fa xam naa leen. biram su bu jël place bi dee jot moom ak may mun a jiyee ñoo ko war a jël ndax ñoo ci na a sonn. joomaay il vient après El Malick après kon biram su lay c'est le yëf da nga koy teg fi mu jaar moo ko moom. kon ñu téye joomaay sax lan lay wàññi même bu du joomaay même bu du biram sulay mem bu du el malik du bërki démb jox nañ koo xam ne li lay li lay wonne Pastef c'est une coquille vide amul dara bi Ousmane Sonko biram sulay joomaay el malik ajjuma sow ñun noonu lañ fa xamoon à part ñi nga xam ne dañoo ñëw di suutu seen parti ak seen mouvement parce que kenn xamu leen ñu dem di suutu fa seen mouvement ak seen i parti ñooñu ñoo fa nekk mais ñii ñii juróom bu ñu bokkatul <laughs> kan moo fa nekk moo tax burki mu ñu jël ko jox ko comment il s'appelle la kii akim la xaw ma nu mu tudd aajeen fële moom lañ ko joxoon moom lañ ko joxoon te kooku bokkul ci ñi sanc Pastef dafa ñëw rek di mouvement mu xam partem ci biir euh, kii bi dafe ayib dafe ñom ñoo ñëpp buñ fi ne ayb dafa ngi fi nañ ko jox ayib dafe jàkkuñu kuñ ko bëgg def mais journaliste bu ñuy wax nañu dégluwaat bu baax ah euh, c'est euh, euh, truc c'est pas le seul joobaay c'est pas le seul la preuve que de peut-être da doon dem ci plateau yi rek mais ñàkkuñu ñoo xamné ne mën nañ la jox ñu remplacer Ousmane Sonko il faut que les gens arrêtent mais soyons sérieux on est dans un pays de droit nañu def droit li droit wax nañ ko bind ni doomu jaamur yaangi ci kasso bi aussi nañ désencombré kasso yi wax ma la ñi ñu mujjé duggal lé mais ñi nga xamné yag yàgg nañ fa nañu ubbi sen dossier aussi ñu xol leen parce que ce vieux charognard là comment il s'appelle le vieux là euh Alioune Tine ah, man charognard la ko tuddee parce que ci lu ne lay dugg barki dem sax japp na ci yalla reconnaître né ah Macky Sall dara la euh, ci aduna bi euh, bind na ko reconnaître na ko gërëm na ko sant na ko ñu ko ci sant aussi mais momit it buy dox na bàyyi di doxal rek politiciens yi siiw yi sama zaar gi nga xamné wax rek lañuy def suba bu guddi tëdd nelaw na baye di len waxal tay waxal jeune yi nga xamné yag nañ ci biir kasso bi amna na ñoo xam dof nañ fa amna na ñoo xam ne nañ fa mo gën chaque fois mu top ben Ousmane Sonko ben Ndeye Sow ben Macky Sall wala benn benn nit bo xamné nit ñi xam na pour mu diko défendre s'il veut vraiment travailler pour sa société et pour le Sénégal et pour l'international il y a des Sénégalais qui sont dans les prisons <laughs> yoo xam ne amuñu kenn amuñu jógoo avocat lekk ñu naan ñu mën na leen toppatoo et je pense que keroogee bu ko defee dañ koy applaudir mais topp tey bu tayee nga dal ci Arouna euh, Yoro Dia mi nga xam ne yaa ko jàngal euh, yàlla def nag mu dépassé la parce que moom dafa gëmoon jàng bi nga koy jàngal ba yàlla may ko lim koy may ba tey mu nekk ci voilà ngay am sa tailleur sax sa apprenti tailleur mu dem ba ubbi loo xam ne yow ubbi woo ko xam naa xolam a jeex rek mais na na bës xolam naan glace def tuuti zirik te xam ne lii am ci diggante moom ak Yoro Dia moom yàlla def na ko xale boobu macha allah bu bindee rek la sama xarit Bamba Fall di wax ne xalimaa dam ci ci ci ci loxo bi yooyu daal la ñu bëgg Sénégal bi ñu delloosi ko kii fi yàlla di teg teg na ko fi pare opposition moom bokkul man gëm naa ne euh, Benno Bokk Yaakaar bu ñu demee dañuy gagné ah man man dama koo gëm wax leen ma ban opposition ngeen fi gis boo xam ne mën na gagné Sénégal fii. no y a pas parce ñu woon lu du troisième mandat ñoom au fait dañoo yaakaar ne dëkk bi day tàkk ba kenn uti jiwul dara. yaakaaroon nañ ne dëkk bi day tàkk ba kenn uti jiwul dara te ñoom nag kaay bu dañuy wax ñoom dañuy wax euh, benn bokk yaakaar boo ñu sañoon mag dañuy génne Ousmane dëkk bi tàkk non opposition bi nga xam ne dañuy négocier ay renvoi deux ans ñoom bu ñu sañoon affaire bi day tàkk de opposition bi pare ñu pare wu wuñu électorat Ousmane Sonko bi lañ bëggoon a wéeru te gëm naa ne xale yi duñ leen ko jox xale yu sadi gii non ñoom benn yàlla la ñu am muy Ousmane Sonko de ci àdduna non non non bu dul Sonko ñoom kenn kenn te dëgg la sax. ils ont même l'habitude de dire topp ñu kenn Sonko. man la man sax dama cee wax ak am ñu ma ci waxal te dama leen koy wax gis na seen électorat bi jël ko jox ko président Macky Sall bi nga xam ne adversaire politique wu Ousmane Sonko la du noonam. Mhm. waaye yeewi askan bi ñooy noonu Ousmane Sonko. mais paa yooyu ànd